mais c'est une bonne chose. noo tudd s'il vous plaît. Pape Malick Thiam Pape Malick. li ngay wax nii jéem nañ ko c'est-à-dire table rase ils ont te loolu lañ ñu waxoon jéem nañ mais bi ñu ñëwee dañoo xam ne loolu mënta ne xam nga par exemple dafa am moo yooyu yooyu tudd dama ci dama ci taxaw rek ma jox la benn exemple dañ ñu waxoon rupture loolu lañ ñu jaay dañ ñu waxoon anti anti te lañ lañ gis déjà anti système man mosuma ko gëm boo si satisfaction bi may wax sànq mooy que ne man damaa mës a gëm ne booy jox nit dara day fekk nga xam ko ak nga am ko c'est un moo qui qui existe dans le dictionnaire français mais lu palpable kan moo ma mën a wax fii lan mooy anti système si lu palpable c'est un mot juste rek buy exister en français ñu jël ko ñoom pour vendre nit ñi un rêve ñu naan ñu anti système anti ku ko xam tu peux pas naître dans un pays boo xam ne ci li nga judd ci liñ la yar ci liñ la jàngal ci fi nga jaar cest à fi ñuy jàngale même en fi ñuy jàngalee même système muy ENA école boobu yow nga jénde fi li nga xam ne moom mooy ndëgër laayu système muy impôt et domaine fa nga doon liggéeyee. le système le système yow la yow yow mi wax na yaay indi anti système yow yow la votre maman est enseignante sa papa nekkoon ci système bi. géré woon seer sama dëkk man Sébikotane. muy centre d'expansion ñoom wax ñoom ay anti système lañu. non si c'est eux non non c'est eux qui le disaient. Ah c'est eux qui le disaient c'est Ousmane Sonko qui disait. que non qui qui disait man anti système non je pas non c'est Ousmane Sonko qui portait le projet. Ah, Ousmane Sonko dafa wax ne man anti système la man j'ai jamais entendu ça par dafa doon wax ne bon c'est un langage médiatique quoi. je vais aller plus loin. da doon moo tax dañ fee war a jëlee système bi indi fi anti système bi. allant même jusqu'à première fois bi ma koy dégg muy wax ko de 60 à nos jour ñu fi mës a jiite ñoom dañ leen war a <laughs> waxul sax remplacer fusiller la wax. bon je loolu mën nañ ko. voilà maintenant maintenant maintenant pour pour continuer si li nga doon wax par rapport ak journée journée démb bi. Mhm. Euh, man rupture bi ma doon gën a xaar ci ñoom surtout que nga xam ne euh, daara ñoom li mu leen defal defalu ko benn politicien ci àdduna. Ousmane Sonko en l'occurrence moom rek la fi ay kuréelu daara jóg booloo tuddee seen bopp modap man waxoon naa ne sax ba ñuy tuddee moo dab c'est euh, mu dab dabal lay mujjee parce que li ci amoon dara du ci dëkk mais au moins ay doomi daara jógoon nañ booloo ngir taxaw jàppale ko bi mu nekkee ci ay tolof tolof dans l'affaire Adji Sarr nekk ci ay ginnaawam di ko defendre di def ay conférence de presse di def ay marche pour ay cause am démb la ñu toroxal daara encore une fois fii ci Sénégal dañ leen invité ba ñu ñëw bi ñu ñëwee amuñu accès ci salle bi difficilement bi ñu duggee ci salle bi amuñu fu ñu topp non non daa daara ci boppam parce que démb on avait invité ñi nga xam ne ce sont les champions d'Afrique et les champions du monde def jaloore ci alxuraan récemment ci Sénégal bi ñu ñëwee amuñu fu ñu toog dañoo waxoon ne dañu leen di jox ay prime jox nañ école yi récompense joxe na fa xaalis plus de cent millions joxe ay matériel amul dara luñ ci jox daara. te invité leen ba ñu ñëw parce que ay yaakaaru xale. am na benn benn élève boo xamante ne ba amul avant amul woon sax mais ren si lañ si dugal ñoo xamante ne si école coranique yi lañ jóg am na benn prix boo xamante si c'est dédié euh, ci ñi nga xamante ne. élèves gis nga gis nga ñu jox leen ko. bien sûr am na ci. ci 32 non non élève élève la bu jàng daara wala waa daara parce que waa daara ya fa nekkoon démb ñoo wax. ma dégg ñoo xamante ne par exemple école coranique la ñu xam nga tra discipline yi euh, matières yi 32 la. mais ci biir 32 yi am na boo xamante prix boo xamante ni c'est réservé. Maodo ak ñoo xam ne école coranique yi la ñu. foofu la ñu jàngee. Maodo Malick waa daara yi demoon en tout cas le champion d'Afrique ak le champion du monde. Hmm. yañ fa invité woon. waxoon ne tamit dañ leen a jox prix. sont rentrés bredouilles. ba ñu ñëwee pour ñu accès ci salle bi c'est tout un problème bi ñu accédé amuñu sax fu ñu toog loolu la ñu def daara démb. loolu dama ne mais c'est la faute à qui je pense que c'est la faute aux organisateurs. qui a organisé. mais Ousmane Sonko n'a rien à voir. non c'est l'État qui a organisé man je parle de l'État sénégalais ak ki nga xamante ne moo porté woon projet bi daara xeexal ko. pourquoi. démb non Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Faye. ça pour man euh, ministère de l' supérieur ak ministère de l' nationale ñoom organiser affaire bi. ah nga wax état Sénégal pour jëf un fourre <laughs> mais je veux dire il faut séparer les, choses quoi euh, soyons réalistes ministère de l' éducation conjointe de l' supérieur ñoom organiser affaire mais est ce que ministère yooyu noonu ñoom TV. Ouais. c'est la directrice générale. ah bon le la première fautive. ah mais bu fekkee ne bu fekkee ne balaa euh, man. Maodo Malick Maodo Malick bu ma nekkee fii su ma la dénkee plateau bi. entre la présentatrice elle est là. benn bourde si quelque chose se passe pas bien ici. c'est elle la première responsable après le réalisateur. waaye hmm. mais je veux dire si dama lay jox beneen exemple xam nga yow fi ngay liggéey mën nga def bourde fii man su ma fi waxee bourde. c'est la responsabilité présentatrice bi ak chef de production bi parce que moom ma fi invité. maintenant voilà euh, c'est l'état sénégalais qui avait organisé encore une fois parce que c'est un message qui m'intéresse parce que man ci daara laa bokk. Mhm. que Sénégal dañu ñàkk a jox cër daara. san ne commence ça ne date pas c'est pas par rapport ak ak l'état de de de Diomaye et Ousmane Sonko je parle d'une manière générale joxuñu cër daara. mais ñoom dama foogul woon ne ak li ñu fi wax ci rupture yëpp ak li ñu fi wax ñun yonente bi la ñuy topp alxuraan la ñuy topp ñaña ñi ñaña ña en tout cas démb li ñu def mm. doomu daara rafetluwul ñaawlu naa ko et modab yi nga xam ne ñoo daan jénn lu Macky Sall ŋaas ba ñu ne dañuy moderniser daara sax lu ne ñu wax ko le président Macky Sall li xew démb moo gën a ñaaw te nañu jénn wax ci ñu bàyyi par parloo bi ak kumba am ndey kumba amul ndey avant mooy intervenir en fait je je une question